alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baad amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu rabbi shrah li sadri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 waaye du ñu deñ mukk di ko ñaan comme ni ñu ko aadawoo di ñaane rek saa su ne yàlla nañu téyel suñu iman ba mu bañ a ba bu ñu demee mu mën a kontaan si ñun moom borom bi subhanahu wa taala allahu ñu ngi yéen rek seen saar am solo bii ngeen miin muy suratul ankabut ba ba léegi ci lañ nekk yéen tey macha allahu ñu amoon ci lu toll ci quarante cinq verset tey ñu war a jël quarante sixième verset maanaam saar bii di suuratul Ankabut amoon nañ ci ñeen fukki aaya yu teg juróomi aaya tey ñu war a jël ñeen fukkeelu aaya bu teg juróom benni aaya ci seen saar di suuratul Ankabut borom bi subhaanahu wa taala bi ñu fi mujj waxoon naa leen ni li santoon daal mooy nañuy taxawal julli muy wax ju solo bu suñu borom subhaanahu wa waxoon ginnaaw ba mu ne yonent bi jàngal li ñu wàcce ci yow ci téere bi waaye ngeen taxawal julli taxawalal julli bu ko waxee rek xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam alquran li tax mu am solo mooy bi umumi lafzi laa bi xusuusi sabab maanaam day yaatal mooy moom alquran day ratisser large mu ni ko ndax jullikat dafa bokk ci li muy jariñ mooy day tere def lu bon ak lu ñaaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mas nañ ko wax ni ko diw de mu ngi julli waaye teewul day jëfandikoo yenni mu ni subawul bawul julleem googu tey sellal julleem gi julli ga dina ko tere ji bis ba mu yëg ni mënatul di boole di julli ak di def li mu doon def mu wax nag ni tudd yàlla ak fàttaliku yàlla moo gën a màgg lu mu mën a doon fàttaliku ko ci julli fàttaliku ko ci koor fàttali ko ci boo wéetee soo wéttali saa sune daal bu yàlla denc sam xel yàlla ëpp na sax di fàtte mun nag yàlla xam na li ngeen di def lépp looloo garaaw ci wax ci da ba yàlla nee na li ñuy def yëpp xam na ko kon kenn mënu ko nax bi mu paree foofu nag tey mu ñëw ci lu am solo di wax nit jullit yi di war a jëflante ak ñi nga xam ne ñooy les gens du livre bu ñu la ko waxee mooy ahlul kitaab moo xam yahud bi la moo xam nasaraan bi la nga xam ne ñoom kat ñii nit yont yàlla Moussa lan nii nit yont yàlla Isa am nañu téere am nañu yonent mais am nañu ak ñoom ay différent am na foo xam ne bokkuñu fa ak ñoom gis-gis ñàkk bokk gis-gis booba nag teewul yàlla wax nu nan lañu war a jëflante ak ñooñu borom bi subhanahu wa taala wax nañu ni wala tujaadilu ahlal kitaabi illa billati ahsan borom bi nee na bu leen jëflante ak ñooñ téere yi ñi nga xam ni la ñooy les gens du livre muy ahlul kitab bu leen bu leen daggee ak ñoom lu dul daggee win wi gën a rafet ahsan la yàlla wax ahsan afaalu tafdil yàlla def ko tëgg tëggin woo xamante ni da lay wax ni la na mu gën a rafete waxul nag di nga jëflanteek ñoom jëflante bu rafet di waaye ba gën a rafet la la yàlla sant wolof nag nee na bu ñuy wax mbaax ngëneel dafaa newul kon li lépp gën a am solo lépp gën a màgg lépp mooy sooy jëflante ak ñoom seetal jëfleen leen jëflante ak dàgge ba gën a rafet nga koy def manaam booy discuter ak ñoom bu leen dépassé bu leen agressé verbalement bu leen bu leen wax loo leen war ta wax parce que bokk leen gis-gis bokk leen doxalin yow xam nga li nga xam moom nga téye sooy wax ak ñoom waxeel ak ñoom waxin wa gën a rafet mbokk ay bii dafa tiitlu de yàlla nee na ki nga bokkalul diine sax bokku leen diine su ngeen di wax su ngeen di wax ak di werante ci niñ ko mën a waxe ak di dàggee sante ci ay wax nee na seetal na gën a rafet nga wax koog moom donte le bokku leen diine fa kay fa nag ki nga bokkal diine ah mbokk yi de wax dëgg yàlla ñi ci réseaux sociaux yi di daggi saaga kenn ku ne tariqa ba nga nekk tax ngay dagg saaga keneen ku nekk ci beneen tariqa ak keneen ku nekkul ci benn tariqa wax ju bon ju ne mu wax ko ña ca tariqa ya ak ñi nga xamante ne ñu nga ca tariqa ya gis ka nekkul ca tariqa ñu koy wax ñoom it wax ju bon ju safaanu ñii ñépp day maa ngi leen di delloo ci aaya bi yàlla ni wala tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan yàlla waxagul sax ci ñi nga bokkal diine waaye ña nga bokkalul diine sax sa borom nee la jëflante bi ngay jëflante ak ñoom ak échange yi ngay def ak ñoom nag seet na seetal la gën a rafet nga jëflante ko ak ñoom rawatina nag ki nga bokkal diine ah mais bokku leen tariqa loolu kenn ku ne ak la la doy jàppul tariqa looloo ko doy yow kii jàpp na tariqa lii moo ko doy kii tariqa bii la jël parce que bii la jàpp ni moo ko doy kee jàpp ni bële moo ko doy kee jàpp ni bële moo ko doy waaye yéen ñépp ay jullit ngeen maam ju baax ji nee na werd wu fi nit mën a jàpp te caaxaanewul werdam boowa nee na baax na moo xam dafa jël werdu boo xamante ni mooy bu Cheikh Abdul Qadir Jilani wala mu jël werdu woo xamante ni mooy bu Cheikh Ahmed Tijani wala bu ku mu mën a doon ci ñooñ yépp nee na baax na parce que yooyu yëpp fa mu jëme nit ki mooy ci boroomam ak ci jaamu yàlla nee na foofu la jëme nit ki ci boroomam ak ci jaamu yàlla kon mag ñi xamoon nañ ni dañuy boole mbokkam mu baax ba ni teg ce nii tariqa boo fi gis rek su fekkente ni wàccul yoonam tariqa aw yoon lay firi dàbba tariqa mooy aw yoon yoon wi nag boo ci tegoo te wàccoo ko wa allaw istaqaamu ala tariqati la al quran wax tegul ci tariqa bi rek bañ a la wàcc yoon wi soo ko wàccul mu teer ak yow ca sharia ba waaye boo teeree yëg ni nemoo ci sharia mooy topp nga ñal wax wala tattabiu subula fa tafaraqa bikum an sabil kon yàlla nee na ñi nga bokkalul sax diine jëflante ak wax yi ngay wax ak ñoom na doon na gën a teggi ne na gën a rafete nit koo fi saaga kilifaam mu saaga sa kilifa kooku dafa war a leer koo fi xas sëriñam mu xasal la sëb sëriñ yooyu nag baaxul ki nga bokkalul diine sax waxuñu la loolu ka nga bokkalul diine sax kenn santu la ci loolu yow jullit nga yonent bi sa alayhi wasallam mooy sab yonent est-ce que dalaa may sañ-sañu ngay taxaw di wax lu ñaaw ci yonent yàlla Isa est-ce que dalaa may sañ-sañu ngay taxaw di wax lu ñaaw ci yonent yàlla musa te ñun ñëpp bokk ci ulul azmi mina rusul kon nag rawatina yow nag nan ngay doone jullit sa mbokkum jullit doon jullit saa su ne ngay parparloog féeteeg ba ci indi détail maam ju baax ji doon na wax naan saa yoo duggee ci jàkk dàbba jullee ndoog nit imaam kàbbar nga kàbbar moom mu kàbbar nga rukkoo mu rukkoo nga siggi ci rukkoo mu siggi ci rukkoo sujoot mu sujoot ba julli gi jeex imaam ni asalaamaaleykum moom mu ne asalaamaaleykum nga wax asalaamaaleykum mu pare def baax baa xiyaar salxaab jox la loxo wax sëñ bi yow foo féete foo bokk nee na roccil sa loxo te xam ne ab naa fiq la fi ngeen bokkee jarul mu la koy nag fi ngeen bokkee mooy fi ngeen daje pourquoi mu bëgg laa laajaat waa sa waay yow foo foo footeen féete noonu fan mooy sa soowu waay ak wax yooyu nga xam ni waxi waxi détail la rek ak waxi tàqale jullit yi jullit daf ko war a moytu yàlla nag moo ko mu ngi nii nee na ka nga bokkalul diine sax na rafet rawatina ka nga bokkal diine dañ seetaat suñu bopp mbokk yi mu ni illa alladina zalamu minhum lu dul ña nga xam ni nag tooñ nañ ca ñoom ndax boobaa dañuy génn ci wàllu ahlul kitab waaye dañuy dugg ci kéefër te yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim la yàlla wax foofu moom amatul nekk fii di négocier buy dugg ci loo xamante ni loolu ak bokkaaleeg yàlla la loola nag bul ko ko may loolu moom bu fa yegg moom waaw na rafet rek na rafet waaye nag maslaa du tax nga nangu ku la maasale maslaa nag waaye maslaa bi du taxit ma nangu nga maasale ma du ma ko nangu yàlla nee nag kooku moom ki nga xamante ni moom dafa tooñ ci ñoom ba doonu yéefar kooku moom bul ko may dara dara dara wax ji na tàng na metti ashiddaau ala alkufaari waaye ruhamaau baynahum la yàlla wax ci jullit yàlla moom ñun alxuraan dafa ñu kenn la te du am ñaar loolu la ñu alxuraan wax boo waxee nii rek mu bëgg ni la yàlla du fi benn yàlla ñaari yàlla la ñett nekku déedéet loolu moom négocié wu ma ko du ma ko maslaa kenn moo ci maasale yàlla moom kenn la amul benn doom ndax moo mooy carte d'identité suñu borom mooy qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulat jurul kenn te kenn juru ko loolu dafa war leer nañ ñi suñu bopp yi léegi kuy dugg ne ko foofu nag moom du ma ko du ko du maslaa bi jëmul foofu de yàlla kenn la waaye budul loolu maslaxa leen maslaxa bu rafet suñu digganteeg ñi nga xam ne ñoo ñooñ téere dafa rafet boo demee yàllaa ngi ci gën a nag seete maanaam génnal ñu ñeneen ñu am solo macha allahu di leen tagg ci alquran muy ñi nga xamante ni mooy nasaraan yi ñoom borom bi subhanahu wa taala dafa wax ci ñoom wax ju am solo wax ñoo xam ne ñun ñëpp war nañ koo bàyyi xel dafa wax ni ñi gën a bañ julli di ñi gën a bañ julli di ci kaw suuf ci nee na mooy ñi nga xamante ni ñooy nas ñooy yahud yi ak ñi weddi yàlla ñooñ moom dañoo bañ jullit yi te yahud moom jarul xaritool jarul lonkool jarul yenn yi moom daal moom na wax ja rafet sa diggante ak ñoom waaye ne ko mbaale ya demal ba dem parce que ñoom dañ ñoo bañ de lu sama wax nag alquran a ko wax waaye nee na ñi gën a jege jullit yi gën a bëgg jàmm seen diggante ak jullit yi nee na mooy ñi nga xamante ne ñoom ay nasaraan lañu loolu de ñun ñun dàbba loolu ñun gis nañ ko suñu réew ñu ngi fi dëkk ak ñoo xamante ni ay chrétien lañu amuñu ñoom benn problème foofi dem yaa ngi nekk ak ñoom yaa ngi nekk ci jàmm yaa ngi nekk ci salaam ñu dugganteeg nit ñi seq jàmm saa su nag ma wax leen ni dañ ñuy naxaale tuuti nag ndax ñun bu tabaski jotee ñu jox leen yàpp war mais ñoom ngalax rek lañ ñuy jox léegi foo ñu yokk ñoom it seen ngalax bi wala ñu seet bu ñu koy organiser waat moom laay tooñee sama mbokk yi saa su ne naaru Françoise gi nag xam naa ne fi ne mu ngi may dégg nañ ci bàyyi xel bu baax mbokk di rafetal mu ni nag waquulu wax leen ni leen amanna billadi unzila ilayna wa unzila ilaykum loolu nag mooy démocratie ñun gëm nañu li nga xam ni wàcce nañ ko ci ñun waaye gëm nañu it li nga xam ni wàcce nañ ko ci yéen très important loolu dafay indi jàmm ci diggante ñun gëm nañu li ñu wàcce ci ñun gëm nañu it li ñu wàcce ci yéen na na leer moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daan na wax naan bàyyi leen leen nag seen téere ndax dafa amoon jamono yoo xamante ni ahlul kitaab daf ci am ñoo xamante ni dañ doon jàng tab tawraat bi maanaam niti Muusaa yi yahud yi dañ daan jàng tawraat ci seen làkk muy ibra muy hébreu buñ ko daan jàng di ko firi ci arab comme nag ñoom daf ci da bari woon ñoo xam ni c'était des intellectuels malhonnêtes yonent bi ni jule yi laa tusaddiqu ahla alkitab wala tukadibuhum wa qulu amanna billadi unzila ilayna wa unzila ilaykum nee na bu leen leen dëggal waaye bu leen leen weddi ndax xëy na am na lu ñu lay wax loo xamante ni biñ la koy firil laak bàyyi nañ mbir ma wax lu dul noonu mën na amit loo xamante ni noonu la yow nga jàpp ni comme yenn saa yi ñu wax lu dul noonu nga bëgg ko weddi mu ni pour nga mucc ci nag bu leen gëm bu leen weddil suñ la waxee daal ne ñun gëm nañu li ñu wàcce ci yéen gëm nañu li ñu wàcce ci ñun jeex na ni leen wa ilaahuna suñu boroom ñun wa ilaahukum ak seen boroom wa ilaahuna wa ilaahuna suñu yàlla ñun wa ilaahukum ak seen yàlla yéen yépp nay nay leer nga koy waxu ñuy dégg waaxidun kenn la wa nahnu lahu muslimuuna te ñun kat ñu wommatu lañ nangul yàlla loolu kay lu leer la ni leen wa ilaahuna ñun jullit yi suñu yàlla wa ilaahukum ak yéen waa ahlul kitaab seen yàlla waaxidun benn yàlla bi la wa nahnu lahu muslimuuna ñun dañu wommatu ànd ak ànd ak nangu kon ñun amuñu problème mu gëm ñoom li seen yonent gëm lépp wax dëgg yàlla problème bi nag mooy nit mënoo nekk ak moom di ko dëgg yàlla nangul naa sab yonent ni yonent la waaye yow waroo nangu man nag man mi nga nangul sabab yoon yow duma nangu sa bos loolu day indi problème mu tax ñun amuñu problème boobu boo ñëwee suñu kër yi tur yëpp nga fay fekk ana mu ñaata Moussa moom suñu kër yi ñaata Isa ñoo fa am ñaata Yusuf ñaata Ibrahim ñaata Yaquba ñaata Ishaq ñaata du jeex dañ fa bari amuñu ci problème parce que dañu gëm ni ñi ñëpp ay yonent lañ te laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli moo tax mu wax leen loolu yéen nag ñu dañu wommatu jëm ca yàlla mu ne wa kadalika ni ki nii nag anzalna ilayka alkitab nii ma la ko waxee nii la ñu wàccee ci sa xol bi yow sayyiduna muhammad téere bii di alkuraan bu nag fa alladina ataynaahum alkitab ñi nga xam ni joxoon naa leen ay téere te ñu comprendre xam lu xew ñoom de yuminuuna bihi dañuy gëm sa téere bii ndax dañuy xam ni mu yahud yu sérieux yi ak nasaraan yu sérieux yi ñu mel ni ñoon abdullahi ibnu salaam ñoon salmaanul farisi ak seen i kem ñoo ñëpp dey loolu dafa way doon seen mbir moo xam ne duñ ko fawee duñ ko sàggane mooy dañ lay nangul xam ni borom bi subhanahu wa taala moo la yónni loolu dañ koy nangu te dafa am solo nit bu ngeen bëggee nekk jàmm bul ko xeebal kilifaam bul ko xeebal sëriñam bul ko xeebal képp ku am loolu dafay indi problème ci diggante nit soo ko xeebalee ki mu am xeebal ko li mu am loolu day indi jafe-jafe seen diggante moo tax mu ni ko gaa ñi nga xamante ni day jox nañ leen téere te ñu jàng ko xam ko ñoom dañ koy gëm wa min haula man yuminu bihi am na ci ñoom it ñoom ñii mu lay nii mun ko am na ci ñoom ñoo xamante ni dañ koy gëm gëm bu wër mu ni wama yajhadu bi ayatina illa al nee na même waa Makka am na ci ñoom ñoo xamante ni gëm nañu alquran ji comme ni ko yahud yi ñi xam ne jox nañ leen téere ak nasaraan yu sérieux yi ñi ci gëm yépp bokk ak ñii nga xamante ni ñu ngi fi gëm ko ñoom ñëpp ñoo yem ci mbaax ndax wamaa yajhadu du diingat wamaa yajhadu du weddi bi aayaatinaa ci suñu aaya yi illa lu dul ñi nga xam ni ñoom ay yéefar lañu ñooñu daal ñoo am fitu weddi waxu borom bi subhanahu wa taala ñoom ñoo ko ñemee weddi muy ñëw rek so bi sallallahu alayhi wa lii muy bëgg a ñëw dabb dafay bokk ci mujiza maanaam benn al mujizatul xaalida muy le miracle éternel la lay wax mooy lan muy alquran xam nga li tax mu nekk doon miracle dafa bari mooy lu mel ni alquran yàlla nee na wa mujizatul li qawmi yaqiluun nee na alquran ak mën a lottal borom xel yi nee na borom xel yi sax da leen di lottal da leen di sonal ndax lu mel ni alquran mësuñu ko dégg te dootuñu ko déggati nee na lu mel ni alquran masuñu ko dégg waaye lu mel ni alquran dootuñu ko dégg na leer lu mel ni alquran musuñu ko dégg waaye lu mel ni alquran it dootuñu ko dégg yàlla nag nii li ci yéeme mooy wa ma kunta tatlu min qablihi min kitaabin munu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow de lu jiitu ma lay yónni masoo fee toog ba si yàgg di jàngub téere du tawraat du zabuur du injil du lenn loo fi mas a toog bu lu ñu mas a toog dégg nga koy jàng lu jiitu ma lay yónni wala taxutuhu bi yaminika binde woo ko it ci sab ndeyjoor joor waaw wane ni ko mënoo woon jàng mënoo woon a liir loolu moom na leer lu jiitu may wax ak yow ndax nag ba mu waxee moom loolu dafa deñ moo tax mu xëy taxaw ni ana madinatul ilm wa aliyun baabuha man maay dëkku xam-xam àllin di buntu ba booba defar nañ ko jox nañ ko liñ koy sol moom lu yàlla nag ni ko lu jiitu loolu moom ma soo fee ne di def loolu kon nag ndax su fekkonte ni loolu amoon na idan kon dey taaba dina sikki sàkk al mubtiluuna yàqkat yi dinañ déngi-déngi di jaxase xelu nit ñi naan kii daal xoolal bum ñu jéem a nax kenn ku ne xam na ni dafa yeew kenn ku ne xam na ni dafa mën a jàng waaw boo gisee xam ni boppam bi jàng donc ci ne ñëw di comme dafa ñoo ëppum xel bu ñu amul moo tax mu dem jëli fee ay waxam ñëw lii liiri ko feneen ñëw di ko indi moo tax yàlla ni ko pour éviter loolu lépp ma fekk koo xam ni ñoom ñëpp d'accord nañ ni musul a mën a bind ñëpp d'accord nañ ni musul a mën a liir muy indi loo xamante ni kenn mënu koo indi qul in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin misli yàlla da daan wax ci alquran ni su fekkente ni yéen a ngi am sikki sàkka ak di werante ci lii ma wàcce sama jaam bii kon li ma leen di wax mooy indi leen ab téere bu mel ni téereem indi leen benn saar indi leen benn aaya indi leen dara lu ndoróog li muy wax du ngeen ko mën a indi donte la benn lettre la mu ko looloo ci neex mooy yow mi ko indi xam na ni jàngoo yow mi ko indi xamoon nañ ni mënoo liir loolu lépp ñoom xamoon nañ ko waaye teewul daal xam nañu ni yow li nga indi ak li ngay wax kenn mësu ko fee wax te kenn dootu ko fi waxati ñoom xam nañu loolu bu baax a baax loolu mbokk yi dafa bokk ci mujizaat yi yàlla defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawul bind daawul liir waaye wax dëgg yàlla ku mas a jëflanteeg moom xam ni jëflanteeg ak ku am xam-xam waaw li muy wax nga xam ni kii yàlla rek moo ko mën a solli moo tax yàlla ni ko bu ma deful woon loolu waaye bàyyi la fi nga doon ko mën a jàng maanaam ku mel ni Ali si naa li nga xam ni ñëpp nangu woon xam-xamam Aboubacar ak historien bi mu doonoon ñooñu nga xam ni woroomi àll woo la ñu woon yu sori jàng bu yàlla yónnee woon ci ñooñu dañ naan mooy yow Aboubacar mii nga xam ne non seulement jàng na waaye dox rek lay def foo ko fekk mu ngi tukki wóor nañu ne dem na ci ruq bu ñu xamul jële fa lu ñu xamul ñëw di ñu sonal ay yonent bi non seulement jàngul waaye yàlla da ko sax bàyyiwul woon muy tukki tukki yu bari demal ci histoire am fa mu juddoo ba ba ko yàlla yónnee nga xool ñaata yoon la génn màkk boo génnee douze ans ba génne vingt cinq ba gëwuma nga dajaat leneen de ma nga dajaat leneen mbokk yi yàlla téye ko jàngul bindul tukkiwul ba pare nag ñëw di wax loo xamante ni kenn mënu ko dindi de ndax bu doon tukki sax man na ni yow kii wóor nañu ni ca tukki ba jànge la mu jànge ñëw dëxëñ ko toog rek mel ni ku jàngul mel ni ku xamul fekk ni xam na ni ko loolu de mooy li nga xamante ni moo am waaye mun ko bal li fi ne huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladina utul ilma ni ko alquran ji aaya yu biir la aaya yu leer la des preuves des preuves ni ma koy waxee palpable et tangible moom alquran ji waaye fii suduri alladina utul ilm loolu yàllaa ñi ko def ci dënnu gaa ñi nga xam ni jox nañ leen xam-xam ba pare ñu am honnêteté ñoom nangu nañu te xam nañ ni lii waxu borom bi subhanahu wa xam nañ ni alquran ji du caaxaan am na si ñoo xam ne mosuñu koo nangoo fooy moo leen dugal ci diine ndax xam na ni wax dëgg yàlla lii bi ñu ko déggee amul benn changement amul benn wuute kàddu gi doon benn ba pare yàlla def ko ci dënn gaay yi nga xamante ni am nañ xam-xam loolu ci fooru alquran la xoolal xoolal suñu réew xoolal xoolal suñum réew non seulement léegi mokkal gi xale yi moom gis nga concours yi alxuraan yi ak yi fi nekk yëpp ni ñu mokkale alxuraan mais waaye gis nga concours mbind mi ma ziyaare bu baax macha allah suñu mbokki daara yooyu nga xam ne ñoo koy organiser muy ndam lu rëy ci lislaam ah ay xale di la bindal kaamilu alquran bi ba mu yegg boo xoolee doo gis benn araf buñ ci dam ay jigéen sax léegi di ci bokk kooku lu am solo la mbokki mu ni kon yàlla di nee na alquran ji lay yu leer la aaya yu biir la yu am solo la yoo xamante ni def naa ko ci dënne gaa yi gaa yi dañ koy mokkal di ko téye waaye dañ gaa yi dañ koy bind bu ñu xoot xëyoon maa maa ngi gis yi rek ñuy wane ci Stockholm benn xale bu jigéen bu réew yor téere alxuraan bi nee naay day xotti te téye nii téere alxuraan bi wane ni bëggul alxuraan bëggul lislaam di xotti feu yi man ko fi fexeel ba xotti ko ci dënn yi li nga def amul benn njëriñ moo tax bu ñuy taal alxuraan sax ñun dañoo war a ree nañu dajale alxuraan ji taal suñ ko dajalee bu ñu ñëwee xale yi fukki at xale yi juróom-ñeenti at ñoo lay tariwaatal kaamil bi ba mu yegg ay xale yu ndaw ñoo koy bindalaat ca jamono yi mu méttee sax rawatina léegi nga xam ne xanaa xanaa boo ko taalee foofu da ko mën a taal ci machine da ko mën a dindi fépp kon yëf yi doyee di la yëf ñàkk fayda la gis nga nag boo amul diine da ngay mel ni ku yembati boo gisee ndaw saag mi bi mu koy defee téere bi di xotti téye fooy alxuraan yi man ko mënoo koo dindi ci dënd yàlla nee na loolu maa ko fa def ci dënni gaa ñi nga xam ni am nañu xam-xam loolu de maa ko fa def mu ne wamaa yajhadu bi ayatina illa zalimuuna lu am solo ko yàlla na sama aaya yi képp koo gis mu koy weddi képp koo gis mu koy diingat doo gis kuy weddi aaya yii wala nga gis kuy diingat aaya yàlla yii nee na lu dul tooñkat yi illa zalimun yàlla nee na koo gis mu koy diingat ak di ko weddi rek xamal ni tooñkat la te gis nga tooñkat tooñ du métier de wolof nee na tooñ du gàllaaj ku jël tooñ def ko métier sa bisu gàccee ngi lay xaar rawatina ba fi ñëpp di tooñ yàlla yàlla du ko ñuy tooñ de ndax moom nee na wa ma ana bi zallaamin lil abid yàlla nee na man du ma tooñ sama jaam yi waa kii ni moom du du tooñ kay bu ko tooñ wolof dee na ku la dul tooñ bul ko tooñ yàlla nag nee képp koo gis muy weddi ay yàlla yi rek c'est parce que tooñ la kat la waaye leeral la la ni la ci suratul baqara wal kaafiruuna humu zaalimuuna nee na boo bëggee xam ñan ñooy tooñkat yi jàppal ni mooy ñii weddi yàlla weddi alquraanu yàlla ji weddi yonent yalla yi ñoo ñooñu ñooy tooñkat yi moo leen di yóbbale mbokk jullit seen tafsir jeexul waaye yegg nañu fi ñuy war a yëkkatee jotaay bi kon ñu daanee la aaya wa maa yajhadu bi ayatina illa zalimuuna yàlla nee na tooñkat yi rek ñooy diingat ak di contester ak di am lu ñuy jéem a ñu jutu ak di ko wax ci alquran waaye ku dul loolu boo comprendre xam ne yàlla rek moo wax ci yàlla yàlla defal dégg yàlla yàlla defal topp yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu dégloo waxtaan si yéen la ci ëpp njëriñ ñoo jëriñoo ko aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh